baax ci ànd ba tey ñu ñëw nga woote sa open press mais d'habitude open press maar la ma wax bu ñëwee rek mu débordé dañu am problème trop def suñu liggéey waaw boo gisee gars dañoo xër ba mu ëpp rek comprendre nga damay profité di nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne ñoom ñëpp li leen tax a jóg mooy defar mais affaire bi débordé na débordé boo xamante ni xam nga kenn mënul maanaam gis sa bopp daal mais tamit ñi ngi ñaan yàlla xam nga bu beneen yoonee ñu gën a defar daal parce que tamit Mmh. nga am combat bu am solo sa carrière dimanche le 25 bi ñu dëgmal sa digganteeg Nukureel mu doon adversaire moom adversaire de taille la nga am ci loo jugee psychologiquement côté mental foo toll. waaw côté mental fi ñu toll mooy comme fi que boo xoolee li may wax rek nee naa combat bi laa gën a bëgg si samay combat mmh. ndax man damay bëgg trop di bëreeg nit ñu ne mënu ma see génn. loolu daf may neex boo gisee combat yi nga xamante ne danaan mënu ma génn yëpp dafa am nu may ñëwee mmh. mais li may wax rek mooy na ñëpp jàpp te xam ne man lan am xam nga ñoom laa am parce que ñaari combat lañ am muy xam kombaa combat Pape ak sama combat dafa génn moo tax ñëwul xam nga ngi ñaan yàlla suñu borom bi may ñu ndam si ñaari combat yëpp parce que tamit ñëpp ñaari ndam lañ bëgg di ñaanal ñi nga xamante ne tamit ñoo nekk géejawaay ñëpp ñu am combat yàlla may leen ndam Uh-huh. nga toll foo am teen sa carrière da war a daan pour relancer waat ndax fi nga toll ci sa làmb est yaa ngi mesure dayo combat bi fi mu toll ci yow te si kàttanu suñu borom dañuy daan gisuñu lu ñu mën a teree daan ndax liggéey na li ñu war a liggéey fépp fu ñu war a dem fépp fu ñu war a dem dem nañ fa lu ñu war a def def nañ ko li si des si suñu borom la des te gëm nañ ne xam nga si kattanu suñu borom yàlla suñu borom dinañu mañe ndam ndax daj nañ si ay coono yoo xamante ni xam nga waaw ñu la ko sax wax. Mm. wax nga sanq ñu bëri rumeur mi ngi si yow naan sa adversaire mënoo génn ci moom seen dernier face à face bi ngeen defee ñu bëri ñoo constat bi ñu def mooy dafa mel ni dala xaw a sàcc doole looy tontu ci loolu. yàlla suñu borom bi xam na ne maa ko ëpp doole maas ak doole du benn mm. comprendre nga man déggoo li ma la wax nee naa la sama catégorie man bu ma neexoon amul kenn koo xamante ni dina ma ëpp parce que gënuñu maa baax yaram comprendre nga te sama yaram lu ma si def maa ko moom. est-ce que dégg boo xoolee ñaari état de yi sax keroog bu ñu taxawee da ngay xam ne bokkul. bu dee ko xam sport nag laay wax da ngay xam ne ñun ñaar li ñu liggéey du benn. kon côté doole amul dara looy sóoraale ci moom. du côté doole du côté fit du côté bëre du côté dara ndax bu dee lépp man maa ko ëpp barki Seydina Mohamed. billaay wallaay. da ngay bëre ak mbër boo xamante ne nii xeexam juste est-ce que yaa ngi waaj loolu. waaw ñun pare nañ si tous les côtés si côté yëpp lañ pare amul benn côté boo xamante ne nii bàyyi nañ ko. te incha allahu rabi la 25 juillet la lépp di leer bu neexee yàlla. lan mooy différence combat bi ak yeneen parce que jëlee bu soo jëlee nii waaw mais différence combat xam nga dafa am. may leen ko may leen ko may leen leen ñu xam nga dafa am si lu jugee quoi comprendre nga dafa am si lu jugee te dafa am foo xamante ne dañ faa teg suñu bët. te si kattanu suñu borom dañ fay àgg bu neexee suñu borom lamb ji ndam moo ñu dig te dañuy am ndam incha allah. ban lañ war a mën a xaar bis ba ban la mooy ñëw. waaw maar la boo xamante ne nii lépp lu mu war a def def na ko gëm na boppam xam nga liggéey naa te gëm naa ne liggéey naa te incha allah rabi li ma liggéey naa ko appliqué. incha allah sur le plan de la mobilisation fan nga ci toll. waaw mais mobilisation moom pare nañ si côté yëpp parce que boo gisee loolu dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk sama ginnaaw di ma jàppale ku si mel ni grand Pape Gueye bu étage bu kooku aw ma fayam day def si man lu nekk grand Pape Gueye barki Seydina Mouhamed musuma ñëw si moom mu ngantal ma waaw day def lu ne ngir man comprendre nga di gërëm ku si mel ni Tafaya moom it aw ma fayam duwaañe day jàpp si affaire yi xaalis bi bëri na yëkkati di ma jox. ginnaaw bi ma la nuyoo pare nga duggoon jàmb am loo fa wane est-ce que combat bii nii yaa ngi suuraale ne duggoon nga fa daan seen doom yaa ngi suuraale si combat bii nii moom revanche lay bëri si. waaw su boobaa day doon 2-0 rek comme ni nga ko waxee damaa duggoon jàmb gën daan fa Feu Rouge kon dama fay duggaat daanaat ko muy 2 Thank you.